docteur El Hadj Seydou Mbaye euh, nag xam-xamam màcc ci wàllum euh, virus ñu koy wax euh, virologue nekk tamit membre associé à la société mondiale de virologie kon ñu fas ni waxtaanee ak suñu invité lépp lu soxal coronavirus wante tamit lépp lu laal rek actualité jëm ci wàllum wér yaram fii ak ci adduna bi ñu ngi lay nuyu docteur El Hadj Seydou Mbaye jërëjëf maa ngi lay Mm-hmm. di la di la remercier si mm-hmm. invitation bi nga ma defal nii waaw mm-hmm. ah, maa ngi nuyu aussi euh, ñi ñuy déglu euh, du nuyu waa Sénégal du nuyu ñëpp voilà nga nekk euh, virologue docteur El Hadj du mbay tey jii boo ñu doon faram fàcceel virologie lan nga ñuy wax exactement sa spécialité boobu waaw virologie su ma ko mënee wax dafa nekk domaine boo xamee ni mën naa ne actuellement si àdduna yi mooy domaine bu gën a sensible Euh, si àdduna bi nekkul mm. domaine boo xamee ne ku jóg rek def ko mm-hmm. euh, pour nga wan la rek ne la man ba ma koy def euh, si fële si université Louis Pasteur bu Strasbourg booba mën naa ne man maay première africain buñ nangu mm-hmm. buñ nangu mm-hmm. première africain buñ nangu mu def ko foofu noonu te boobu mooy premier université bu France premier africain buñ nangu mu def. mu def euh, vie santé parcours virologie. d'accord si université boobu. si université ban université la. mooy université Louis Pasteur bu Strasbourg. d'accord euh, mhm. loolu dafay wane rek ne. Mhm. Euh, mhm. sélection bi si war. li ci war yëpp si ñu war ko def pour nangul nit ki pour mu def virologie. dafa ri dafa rigoureux dafa dafa laaj lu bari yoo xam ne ni loolu mooy tax duñ nangu ñëpp def ko. waaw te virologue yi am si àdduna bi ba timil bëriwuñ waaw am na bëri na ñoo xam ni dañuy liggéey si virologie euh, am si benn certificat wala di liggéey si benn type de virus waaye taxul ñu ne ñoom ay virologue la mooy am nañ diplôme de virologie d' donc euh, nga nekk kon premier africain boo xamante ni yaa ngi doon def euh, foofulee ca France wàllum virologie. Mm. mais euh, maanaam lan moo la poussé nga dem si spécialité boobu exactement lan moo la poussé nga ne voilà man El Hadj Seydou Mbaye damay spécialisé wu ci wàllum virologie. waaw waaw parce que apparemment dafa mel nekkul pàcc bu yomb. déedéet nekkul nekkul pàcc bu yomb nekkoon na mm. sama rêve nag waaye musuma yaakaar ne dinaa ko dinaa ko def. Mm. avant may am bac. daan dégg ñi naan di tudd benn virologue fii ci Sénégal. Mhm. Euh, naan professeur Souleymane Mboup euh, mooy koo découvrir moo koo découvrir ànd ak américain yi. vih mhm. euh, jamono yooyu tamit ñuy wax lu bari ci domaine nu Sida fii ci réew mi. Mhm. ak ci àdduna. ba ma demee yàlla def ma dem université bu Metz fa laa njëkkee jàng fa science et technologie ba pare. jóge fa dem Louis Pasteur de Strasbourg. xalaatuma woon ay ay virologie maa ngi njëkkee def ay biochimie. waaye au fur et à mesure may def may gis ne sama rêve maa ngi gën a orienté wu si rêve bi. Mm. ba ma dem ba toll si ma pare biochimie def vie et santé option immunophysiopathologie. Mm-hmm. si gannaaw loolu nag ñi nga xamee ni ñoom ñoo ma formé foofu si université bi. Mm-hmm. gis sama sama motivation ak euh, sama si liñ ma formé si lañ ma nangulee. Mm-hmm. Euh, pour ma def virologie loolu daal moo ma dugal ci virologie. te timil dama doon yaakaar ne comme ko li ëpp si jàngoro yi mm-hmm. maladie infectieuse yi mm-hmm. muy pathogènes yi soixante dix pour cent ay virus ñoo koy joxe. Mm-hmm. ma pour contribuer pour mën a xeex jàngoro yi si adduna donc il faut que ma jéem a def virologie pour mën a pour mën a daal euh, aar yenn yenn nit ñi voilà tey nag foog ñu laaj la luy virus exactement parce que virus pour sax par nit yenn nit yi nga wax leen ko pour ñu accepter ko c'est c'est c'est tout un problème parce que day nekk loo xamante ni su euh, kenn mënu ko gis lan mooy virus exactement waaw virus su ma koy wax mooy ne dafa nekk doomu jàngoro boo xame ni moo gën a tuuti microbe hmm. microbe dafa tuuti tuutiwaay boo xamee ni bët mënu koo gis moo tax ñu koy wax microbe hmm. moom micron la étant de micron hmm. dix puissance moins six waaye virus day gën a tuuti junni mm-hmm. yoon benn microbe ñu ngi mm-hmm. mel ngay xar microbe bi ko xar di ko xar ba muy junni yoon mm-hmm. nga jël benn xarit bi virus noonu lay toll mooy dix puissance mooy neuf euh, ordre de grandeur am donc te nekkul loo xamee ni microbe moom day dund ah, day dund di di di di di dee am bakkan comme nit di dundee wala mala di dundee mais lu ndaw la virus nag moom nekkul luy dund moom dafa dafay dugg ci yaramu nit ki parasiter yaram bi Euh, nekk fa di multiplier wu la yaram bi doon utiliser pour man a di fonctionner di dox moom lay utiliser di di multiplier wu su multiplier ba toolu benn nombre nag. Mhm. loolu dafay sonal yaram bi. parce que mooy indi ay complications organes yi duñ mën a fonctionner normalement euh, si lay indi yàqu-yàqu yi nit ki jaaree fa faatu. léegi différence virus bactérie microbe. waaw parce que nee nga virus moo gën a tuuti microbe. waaw léegi bactérie. waaw léegi virus. Mhm. Euh, bactérie moom microbe la parce que si microbe yi. Mhm. Euh, mën naa leen wax ne ñetti xeet euh, grand groupe bon am na yeneen yu kii ñu ko kii mais pour ñu ñuy déglu rek ñu ma ñoo déglu. Mhm. bactérie si microbe la bokk. parasite yi ngay gis si microbe la bokk. Mhm. champignon yu ngay gis muy mycologie muy muy fongique yi si microbe lañ bokk. yooyu ñoom ñooy ak protozoaire yu nga xam ni. li mel ni euh, ay euh, plasmodium mel ni luy joxe sibru mhm. yooyu si microbe lañ bokk mhm. ah yooyu ñooy xeetu microbe yi lañu ñu ooyee microbe mhm. ah? euh, léegi nag virus nag moom moom boo tey bokkut ak ñoom waaye dañ leen di bu leen di jàng dañuy wax biologie des micro-organismes si lañ koy boole mais dañ koy defal parcours spécial muy parcours virologie waaw ah. donc noonu lañ leen di différencier pàcc ah. pàcc est-ce que tey jii am nañ ay virologue fii ci Sénégal virologue lu ma ko waxee léegi bëriwul si àdduna bi. Mm-hmm. Euh, parce que man mii di wax ak yow nii euh, décembre bu mujj bii nii euh, man maa nekkoon ku jiite woon head of membership. Mm-hmm. review bu World Society for Virology mooy. Mm-hmm. ki nga xam ne moo jiite si àdduna bi képp kuy virologue si àdduna bi. ki nga xamee ni tamit moom moo am kàddu bu mujj si képp ku bëgg a nekk virologue si àdduna bi da ngay déposer sa dossier. li nga am yëpp nga déposé ko société mondial de virologie après après euh, bu ko gars yi gëstoo pare man lañ koy mujj envoyé. Mhm. ma gëstu xool. bu ñu xoolee commité bi xool ba gis ne yow war nañ la mën a nangul ne yow virologue nga ñu door la ko nangul. Mhm. mooy ñi nga xamee ni ñoom duñ euh, amuñ diplôme de virologie. Mhm. waaw léegi nag Sénégal fii bëriwul virologue. ay am na am na ñeent ay benn benn yi nga xamee ni ñi ngi liggéey am nañ certificat ci virologie. ñu agrégé leen ci domaine de bactériologie virologie par CAMES mm. mais nekkul ne dañoo diplômé de virologie mm. ay pharmacien la ñu doon parce que bu ñuy basé aussi diplôme mm-hmm. comme nit ki lu mu doon mooy li mu am diplôme mm-hmm. ñu ne diplôme de pharmacie moo fi am nga pare ñu ne am nga diplôme de pharmacie wala diplôme de médecine nga pare wala diplôme de odontologie moom la faculté de médecine am mm-hmm. ak yeneen master yoo xam ne microbiologie tout ça mais nag virologie que tel diplôme am amu en tant que tel li tax ñu naan virologue amu fi. waaw wala yow kese la. non euh, su may wax. Mm. du ma wax ne man kese la mën naa mm. am. Mm. kenn koo xam ne sénégalais te xawma ko. Ah bon? te mu existé fenn si àdduna bi ñu joxe ko fenn mais wanewul dossier am cest à que jàngee ko fii si Sénégal. amu fi mooy diplôme de virologie amul si Sénégal waaye peut-être. mu am amul koo xam ne dem na ko comme yow ni nga def jàngee ko feneen yor ko nekk sénégalais. comme yow nekk euh, virologue non xaw ma ko. nekkul koo xam. kon mën nañu wax ni El Hadj Seydou Mbaye c' est l' unique virologue sénégalais. Euh, mën nañu wax ne bokk na peut-être si ñu gën si virologue yi gën a néew bu fekkee am na keneen. Hmm? waaw. waaw waaw ah, parce que mais keneen ki kay kenn xamu ko yow la ñu xam. waaw waaw bu fekkee man lañ xam waaw man nañu wax loolu parce que man maa nekkoon société mondiale de virologie. te hmm. ñi nekk société mondiale de virologie man rek laa si xam sama bopp. Hmm. d'après position bokk si juróom benn nit ñi nga xam si àdduna ñoo dem élection mondiale bi weesu nii. muy si décembre bi si la ku jiite États-Unis remplacé. Euh, ku jiite laboratoire p bu nekk Chine muy Wuhan te ko doon accusé na fa la virus bi jógee moom bokkoon na si élection mondiale bi. ku jóge ku jiite Union européenne aussi Europe aussi si la bokkoon et cetera yooyu yëpp mi ngi si internet bi ak sama photo mais mais lu tax kon xeex bu mel ne bu mu amee fii Sénégal jëluñ El Hadj Seydou mbay jiital ko ci waaw mooy autorité gi yi ne euh, ne voilà ñun am nañ benn euh, sénégalais il est virologue il est spécialisé et mooy ñu ko jiite si àdduna lay woo jiital la ci xeex bi fii au Sénégal waaw nul n'est prophète chez soi te loolu moo gën a ndaw si sama profil mhm. donc euh, nga ne virologue rek parce que mhm. grade dix sur dix la oui. Euh, stimule si cancérologie. Mhm. conseil d' accréditation oncologique européen moo ma ko jox. Mhm. a nekk grade dix sur dix aussi si gynécologie obstétrique ku ma ko jox fédération internationale de gynécologie obstétrique. Mhm. gagné timil prix de reconnaissance médecin de catégorie un dans tous les états américains cinquante deux états américains. nekk aussi. am tamit grade dix sur dix en santé publique épidémiologie institut catalan d'oncologie muy centre bu gën a mag ci àdduna bi ci domaine boobu moo ko jox yeneen maqaama yoo xam ne si àdduna bi ay record yoo xam ne def nga ko yoo xam ne si ay domaine yu bokkul donc loolu jarul sax yooyu yëpp mi ngi si internet bi ku tàppe sama tur si Google yokk gis ko mhm. donc mhm. nekkul nga gis ñooño ñoom ñoo def sama photo def sama profil bind wane ma Uh, si lim nga xam ne ñoom natt nañ ne war naa ko mën a def si àdduna te maa ngi koy def si àdduna timit mm -hmm. waaye li ñuy wax rek nul n'est prophète mais defal ko sa sama réew jot mhm. naa fee liggéey. Euh, mooy comme may wax nul n'est prophète chez soi c'est-à-dire que liñ bëgg mooy ngay nekk di defante di xaawinte sutura di xasante di nekk si kii bu ko ñu door laa reconnaître boo reconnaissance boobu dootul am njariñ parce que bu fekkee ne da ngay dem guerre ñu dagg sa loxo bëtt sa kii dagg sa kii sa yenn cër yu bëri boobaa tamit boo taxawee amul benn mais ak vous êtes basé aux États-Unis nest pas non ma fii sa à fan nga basé wu exactement waaw sa à dire que États-Unis dama fa demoon mm-hmm. Euh, samay diplôme Europe laa jànge mhm. ñibbi si ñëw si réew mi def fi ay gëstu yàgg fi def fi ay années. Mhm. collaboré ak ay doyen faculté médecine. Mhm. collaboré ku yore ak affaire cancer si Dantec. collaboré ak tamit professeur Mbow bu ñuy wax ak yeneen professeur pour ñu mën a caractériser fukki virus ak juróom-ñeent boobu dama ko defoon ngir servir sama pays. parce que su ma taxawee di xaar naan mën naa ko mënuma ko werante mooy kon lu nga wax nii rek werante bu bari lay indi. ah donc ma ne dama koy def mu nekk preuve loo xam ni indil leen lu sotti la bu werante du fa amati yàlla def ma def ko ba mu sotti ànd seeg OMS euh, si gannaaw loolu taxaw naa proposer ay projet pour réew mi pour euh, njiitu réew mi ak ñi ko ñu ñu ànd ak moom pour ñu mën a aar suñ jigéen ñi aar tamit population sénégalaise ba nga xam ne beneen virus bu ñëw boobaa ñun dinañ ci ko mën a teel a fagaru man koo faagagal ba du law si réew mi waaye comme ni may wax rek mooy ne euh, foog nañ ne ku jug di liggéey rek dañ laa war a xeex. Mhm. waaw waaw donc si loolu tomanteeg ma am ay mooy congrès yi nga xamee ni dama koy organiser si àdduna bi. mi nekk si internet loolu moo ma yóbbu si États-Unis parce que mhm. yu bari yoo xam ne benn bu nekk dañ sa programme woon pour def organiser congrès mondial te ma bokkoon si comité d' organisation yi. Mhm. waaw loolu moom ma kii woon mais nekkul ne damaa dem installé wu toog. comme ni ñuy waxee souvent fuite de cerveaux quoi waaw waaw ñi nga xamante ni réew mi soxla na leen dañuy dem souvent sax tubaab yi ñooy xam euh, seen valeur dañ leen di bundu xatal xam nga mm. sama valeur kenn soxlootukul di ko laam-laamee mm, mm. ku battre des records mondiaux wax ma battre des records africain battre de records sénégalais ah ba Sénégal soso te loolu nekkul parce que nit Uh, pour nga wax sa bopp dafay difficile mais à un moment boo waxul nit ñi duñ xam yow li nga xam mm-hmm. il nga partager ko waaye ku ba baat record Cheikh Anta Diop battre mm. record de tout Africain de l'histoire de l'Afrique mm-hmm. en publication scientifique en organisation de congrès en participation en organisation internationale benn bu nekk nga yàlla def nga baatu ko ak grade yi ma wax donc kooku soxlootuñ sax ñuy dute ci xam-xamam lan man ak la manul mm-hmm. li ngi war kay mooy na lan moo tax nangu ñoo xeet nit ñooñu te du man kese mm-hmm. bëri naa ay moroom yoo xam ne ñu ngi si àdduna bi di ay sénégalais am ay yenn diplôme wala am ay yenn xam-xam nekk si àdduna bi di ñaxtu. Mm. parce que dañ mu ñibbisee si réew mi dañ leen di bundu xatal bundu xatal lañ bañ daw diggee naat ñu mm. foog ne non dañoo dem uti ji alal déedéet. Mm. dañoo dañ dañoo amul lu leen gënal dañ leen joxul seen place. dañoo amul luñ luñ lu leen gënal parce que. nekkul ne place bi leen kii mais ñi nangul ñi nga xam ne ay doomu sénégalais lañ. kenn ku nekk sa xam-xam ak foo mënta nekk si àdduna. ñu nangul la nga ñëw servir sa réew loolu dara dàq ko. Mm-hmm. waaw mais suñ demee ba toog foofu noonu. di di di di di dund di kii ni bon amuñu lu leen gënal. voilà amul lu leen gënal te loolu politique la. Mm. waaw jii foog ñu laaj la El du mbay Mbaye si polémique bi am. parce que le coronavirus est toujours la ñu ngi siy wax ba léegi leerul ci euh, sànq sax junj nga ko si sa biir wax yaa ngi tudd Wuhan origine euh, virus bi ñu naan Wuhan euh, ñu ngi dégg labo P4 ainsi de suite tey jii boo ñu doon leeralal ci diggante boobu ñuy wax affaire bi waa France ñoo ko moomoon waa France jël ko jaay ko waa Chine peut-être virus Covid 19 bi foofu la rëccee ainsi de suite. am na si ay rumeurs yu bari ba organisation mondiale de la santé defoon na ci ay gëstu mais ñoom finalement dañ ne virus bi c'est c'est naturel yow lan ngay tontu si euh, polémique bi am ci origine virus bi ci labo bu nekk Chine. te waaw P4. waaw P4 xam nga P4. moo nekk labo yu gën a sensible actuellement si àdduna bi si nu ma ko mën a waxee. parce que mm. bëriwuñ si àdduna bi ay une trentaine la. ci àdduna bi mm. waaw p yeneen labo yi ay P3 la ñu doon moom ngay gën a gis ñu ñu ñoom ñoo xaw a law mm-hmm. tuuti si àdduna bi yu mag yu ñuy liggéey si virus euh, euh, xam nga loolu àdduna bi ñu bëri wax nañ si accusé man duma mën a ñëw rek accusé ne fa la virus bi jugee waaye xam naa ne euh, doomu aadama xarañ na xarañ goo xam ni pour mën a defar ay virus ah virus num boo déggee ba may commencé dama na la pour nga def domaine de virologie rek nekk virologue danañ la saytu xool yaay kan xool sa origine xool li nga man natt la si pàcc bu ne xool sa psychologie sa xel xool tim ndax am nga kàttan pour mën a dékku yenn natt yu métti yi euh, door laa nangul nga mën a def euh, domaine de virologie parce que li li doomu aadama mën a defar si virologie pour pour pour euh, sauver ay bakkan noonu la mën a defee si virologie aussi pour mën a lor ay doomu aadama mhm. waaw moo tax ñooñu duñ nangu ñu bari te tamit dañ leen di contrôler P4 boo ko déggee. Mhm. sécurité ba sa war a nekk dafa nekk sécurité bu kawee boo xamee ni bu ñu ko respecté normalement waruñ mën a accuser mhm. ni euh, échappement viral moo fa am normalement. Mhm. waa parce que protocole yi nga xam ne moom lañuy ñuy établir pour pour euh, dugg si biir P4 wala génn si biir P4 wala sax liggéey fa rek. haute sécurité la. en général armée moo koy gérer. nekkul n'importe kii moo fay am accès. waaw donc euh, bëri na ay wax yi ñu ciy wax mais daal. Euh, ni ma ko waxee woon si sa. invitation mais est-ce que ñuy wax souvent virus yi nekk foofu si P4 mooy virus yi nga xamante ni amagul remède quoi amagul vaccin amagul lu ko faj ainsi de suite loolu da nga koy dëggal wala. virus yi nekk si P4 mooy virus yi nga xamee ni sont hautement dangereux. Mhm. ah dafa am virus dangereux am hautement dangereux donc yi nga xamee ni. Euh, comme ay Ebola comme genre corona ak yeneen yi nga xam ni dafa mën a rey lu bari te bu xasee ba échappé pour ñu contrôler ko dafay jafe. Mhm. ñooñu la ñuy manipuler ci p yi. P3 yi mën nañ ci manipuler des virus dangereux yoo xam ne aussi ay du dangereux la yu mën a wàllaate mais sécurité bi am ci p moo gën a ngand këpp kii pour joxal la misaal rek. France mhm. lëmb. Mhm. ak lu muy am doole. ñaari p kese la am. États-Unis li muy am doole ba cinquante deu états. cinquante états ak yeneen ñaari kii. Mm-hmm. cinq P4 la am. donc mm-hmm. dix états yooyu jël benn p mm-hmm. lay am nga jël euh, Russie presque trois P4 Japon noonu Chine bëriwul donc nga gis ne si àdduna bi Afrique yëpp benn p moo si am donc nekkul loo xamee ni. Euh, lu lu lu lu lu li ma mën a wax mooy base militaire yi nga xame ni am nañ bombe nucléaire ñoo ëpp ci àdduna que que que laboratoire p yi waaw pour wane contrôle ba ca am. ba ca am waaw pour virus mën faa échapper. Mhm. Euh, nekkul lu yomb daal si si nekkul lu yomb mais lu mën a nekk la. lépp am na ñu naan ay dañ ko sànneeg ainsi nit du wax ne lii <laughs> du nekk. parce mm. que même probabilité bu tendre vers zéro aussi. Mhm. n'est pas nulle. Mhm. waaw donc kon kooku duñ ko mën a négliger. Mm. surtout sécurité yooyu may wax noonu duñ négliger dara. mais labo yooyu euh, El Hadj Seydou lan mm. mooy seen objectif carrément. waaw non labo. mooy parce que am ñoo xam loolu lañuy laaj mais ñii lan mooy seen objectif dajale ay virus dangereux hautement dangereux ainsi de suite lan mooy finalité bi. waaw P4 euh, boo ko déggee mooy comme ma wax léegi nii rek euh, dafa am ay jàngoro yu nekk ci àdduna di nekk virus virus yi di ko joxe jàngoro yoo xam ni li muy mën a rey dafa bari comme am am na yu fi jotoon am. Hmm. comme lu man jàngoro grippe. espagnol. Mm-hmm. jot a rey li liñ xayma si cent millions de personnes si yaa téeméeri at si gannaaw. Mm-hmm. si àdduna bi ñenn ñi sax nee nañ ëpp na ko. Mm-hmm. dañoo xayma rek. donc ak yeneen ak Ebola bi nga xamee ne jot na fëlaat nii si Afrique di sonal Afrique si euh, année 2013 yeeg yooyu. ak yeneen donc yooyu pour ñu mën leen gëstu ba mën leen a dafa am ay bërëb yoo xam ne moom lañ leen war a yóbbu. nga xamee ne ña fay nekk duñu am duñ leen wàll te timil duñ buñ génnee dem seen njaboot yi aussi duñ wàll seen njaboot donc lu am échappement viral mm-hmm. sécurité boobu lañ soxla moo tax ñuy defar p pour du fa mm-hmm. manipuler yenn virus yu graaw yi di fa gëstu di xool di yu graaw yi mais tamit bul fàtte ne tamit àdduna mm-hmm. dafa am lu ñu naan aussi ay armes biologiques. Mhm. nu mu amee arme nucléaire comme nu ma ko waxee léegi nii la am ay armes biologiques réew yu bëri si àdduna bi yu am doole. Mhm. defar nañ seen arme mais ñu wax lañ am exactement donc yooyu tamit pour ñu mën koo defar aussi pour pour yàq rek. niñ mën a doomu aadama ni mën a defaree noonu la mën a yàqee. Mhm. Ah, euh, yooyu aussi pour ñu mën koo manipuler. mais def ko ay outil de guerre daal. outil de guerre defar mhm. ay armes yoo xam ne ay armes biologiques la boo déggee biologique rek te nekkul chimique rek biologique moom foo ko déggee rek. Mhm. mooy ne ay soit ay microbe la ñuy utiliser wala ay virus lu si ëpp ay virus lay doon. yoo xam ne dafay mën a law lu gaaw si population bi. wala nga bëgg a attaquer benn réew nga euh, sànni ko nga sànni ko yooyu moom am na si àdduna mhm. te àdduna bi nit ñi xam nañ ko réew yu mag yu bëri xam nañ ko mhm. am na ay proto ay ay traité sax yu gaa yi def si àdduna pour waxtaan ci pour mën a xool armes yooyu yëpp muy nucléaire muy biologie muy chimique ni ñu ko mën a réduire ak ni ñu ko mën a contrôler si àdduna voilà tey jii ñu ñëw ci situation bi au Sénégal temps bariwul te foog ñu wax ci euh, gis nga fi mu fi fi ñu fi ñu commencé ak fi nga xamante ne actuellement fi lañu ñu yem euh, cas yi mi ngi gën a yokk saa su ne même bu fekkente ni am nañ ay guéri guéri tamit nombre de décès yi on est à quatre-vingts euh, à peu près décès tey jii yow boo situation wu euh, Covid 19 bi fii ci Sénégal lan ngay wax parce que nombre de décès yi mi ngi gën a yokku euh, nombre de cas yi mi ngi gën a yokku alors que sénégalais yi ñu ngi gën a ñàkkal fayda feebar bi. waaw waaw loolu loolu loolu euh, loolu man état bi laay wax mooy responsable bi. si naka. waaw parce que boo xoolee sama njël benn intervention depuis avant virus bi di di génn Chine sax. Mhm. <clears throat> ba li mu génnee Chine dugg Europe. avant muy ñoo Afrique. bii mm. ma si bind li ma ci wax ak li ma doon wax yëpp moom la ñuy dund exactement. te ñoom bañ ñoom leneen lañ doon def leneen lañ taxawee donc suñ fekkee dañoo wóolu seen xam-xam comme ni nga ko waxee seppi virologue yi tegee na lee di demee neneen ils sont responsables. ils sont responsables. kon tey jii nombre de décès yi mën nañu xaar mu gën a bari. non dafa day gën a bari incha allah parce que bu fekkee ne virus bi fi mu doon amul dara lu koy contrôler waaw mi ngi circuler mi ngi circuler amul dara benn ba reve nañ barrières yi parce que xam nañ ne lañ doon wax yëpp euh, taxaw ci di di di di di di di te domaine virus du du politique. Mhm. du mbiru politique. comme ni ñu ko waxee léegi si ay p ak yooyu xam luy virus xam ñàngaay bi moo tax gars yi dem defar ay P4 ay kii isolé wu def ay protocole yoo xam ne parce que xam nañ lan la. Mm. du bu si lu ndaw duggee rek politique ak nax nit ñi di calculer yooyu rek. dootul kon maanaam euh, da nga jàpp ne état Sénégal ni muy xeexee virus bi du noonu. daf ko foose dès le début dès le début da ko faussé lu bari dafa faussé ay ay ay ay ay kii yu bari yi nga xama nii waroon nañoo mën a taxaw parce que nit mën nga juum benn yoon. nga rectifié wu si beneen beneen sa la nga dëgmal. Mhm. jum bi doo ko répété mais boo continuer di juum di ko tegle benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn jëm fukk donc loolu loolu dañ naan sax est-ce que du tayeef. Mhm. kon kon tey jii comme donc, est ce que buñ continuer si lancé bi El Hadj docteur est ce que kon li waa organisation mondiale de la santé wala li fi Antonio Guterres waxoon euh, on on aura des millions de morts en Afrique est ce que duñu yegg si loolu. waaw no xam nga man duma wax million sax. Mhm. mais nañ xaar ne euh, ñuy dee moom xam nga dee moom yàlla la quoi. dundu mhm. yàlla la dee yàlla la waaye nag tamit yàlla yàlla bay sa tool. Mhm. Euh, doo toog rek xool naan euh, feebar naan noono damay wér damay wér da ngay def effort na nga war a wéree nga mën a wér mhm. doo toog roog timit na duma feebar dangay def eff da ngay def effort bañ a jàng jàmma euh, jàmm rencontré feebar ba bañ a feebar mhm. waaw donc loolu sabablu la léegi nag ñun ñun si liñ jëm ni mhm. ak ni ñuy doxee ni dañoo war a xaar gis ne virus bi tant que atteindre plus de soixante pour cent si population parce que levé nañ barrières yi ñoom mm. loolu lañ loolu lañ appliqué ñii pratiquement loolu lañ raw na sax mesure d'assouplissement waaw waaw loolu lañ appliqué jëloon yëpp waaw yëpp teggi nañ ko mm. loolu lañ appliqué ne daal ñuy dee dee ñuy dund dund mm. donc kon nañ xaar ne euh, mu infecté ñëpp ñu si ëpp si population bi bu ko defee ñi nga xam ne am nañ jàngoro war a feebar mu rey leen mu rey leen ñeneen ñi nga xam ne dëgër nañ ñu dund donc ñoom noonu la ñuy doxee. kon loolu ngay gis. école yi war nañ ko ubbi ainsi non man du ma wax ne war nañoo ubbi war nañu too ubbi autorités yi ñoom ñooy responsable sénégalais yi ñoom ñooy xool moo tax souvent dama naan domaine technique. Mhm. sa njëlbeen ba avant muy dugg ma naa def ay alerte alerte mais bu ñu demee ba ñoom ñu taxaw di doxee nii ah sama waxee tamit amul benn njëriñ ma wax ne parce que booy wax. dang la ngay wax ñi seedeel la sa xam-xam nga bokk si ñu ko jiiti si àdduna di wax te dégluwuñ la faalewuñ la boolewuñ la sax sa mbir mu bëggoon ne di ñaxtu tamit sa bopp ngay gën a naqaral rek mais est-ce que nekkul euh, docteur dañu gis ni Euh, peut-être ñu jël exemple France par exemple foofu peut-être virus bi la mu fa infecté infecté wu ko au Sénégal la mu fa faat faatu ko au Sénégal te ñoom euh, def def nañ confinement bon léegi déconfiné nañ nit yi ñu ngi vaquer à leurs occupations ainsi de suite ñu ngi si déconfinement progressif est-ce que nekkul ni tamit dañu gis ni euh, koom-koom bi mi ngi dee suñu réew mi amul doole affaire confinement wala nguur gi amul doole pour su tëyee nit ñi ñu bañ a liggéey ainsi de mu mën leen jàppale léegi mu ne naa def comme sax réew yi ëpp ëpp doole ñu ngi déconfiné man tamit naa lever les mesures euh, yu nga xamante ni jëloon naa ko est-ce que du si cadre boobu la. déedéet da war a da war a gis ni. si mm-hmm. domaine prévention da ngay gis li ci kanam da nga war a xool xam ne lii su ma taxawee nii fële laa jëm loolu mooy prévention. du mm-hmm. tâtonner xaaral ma def lii bu demee ba kiiw ma def lee déedéet. loolu moom loolu dafay waree ne kon xamuñ ñoom si liñ liñ jàmmaarloog lan la. Mhm. ni ñuy doxee moom laay wax c'est-à-dire mën nga def benn erreur ñu d'accord ñaari erreur peut-être ñu ne si accidentellement la waaye mënoo see sax. maanaam ñi ñu jiital ñëpp maîtriser wuñ la ñuy def. ah non du ma wax ne maîtriser wuñ. peut-être am nañ xam-xam tey jii boo doon noter le le professeur Seydi. non non professeur Seydi non du ma du parce que moom def na benn devoir. Mhm. moo ne gis na. ne ni ñuy doxee du noonu. mu taxaw mm-hmm. génn am fit. wax ko taxaw wax kaas nit ñi dégguñ nag la mu wax parce que xam nga dañuy kii te mm. am na clash sax ak mm. ministre beeg mm. ak yenn kii ak yooyu. ak isolement bi ñu ko def ak tout ça. kon kooku duma ko ŋàññ parce que def na la mu war a def. Mm-hmm. jàpp nga ni professeur Seydi moom. ba wax jotee wax na. mais loolu mooy yoon comme gisee loo xam ne question de vie sénégalaise na ko quoi en tant que médecin. no xam nga ñun ay sénégalais lañ. Mm-hmm. te ñun ñëpp suñuy wax dañoo war a taxawee parce que Sénégal euh, président dafa décréter dara ne on est en guerre loolu su ko waxee rek képp kuy sénégalais nga nekk parti opposant nga nekk keneen ak yooyu. Mhm. da nga war a primer. Mhm. le nationalisme nga ne yow sénégalais nga. Mhm. te bakkanu sénégalais nga war a sauver dégg nga. donc mais nag bu ñu demee ba si biir guerre boobu ñu gis ne commandement beeg yëpp a jaxasoo nañuy kii on fait tout à l'envers ña nga xam ne ñoo jiite affaire ñoo war a taxaw kat ne eh ndànk nii lii la conseil ñi nga xamee ñoom ñooy leader yi damay jox benn exemple bu ndaw rek euh, si Seydina Muhammad yonent bi mm-hmm. am na xare yoo xam ne dañuy taxaw mu jël décision taxaw wax ne léegi lii Seydina Omar day ñëw taxaw na ko est sa wax la wala waxu yàlla la mm-hmm. bu nekkee waxu yàlla moom amul sax discussion dañuy mm. appliquer mm. Ah, mais bu nekkee sa wax nag faaw ñu <laughs> wax ci ñu kii yéen itam nag sama wax la mu a kon kon il faut ñu discuter mm-hmm. mu joxe xalaatam te bu joxee xalaatam loolu la ñuy def te yàlla bu ñëwee Seydina Omar lay jox dëgg mm-hmm. donc loolu noonu la ñu war a doxee. doxee ci réew waaw noonu la ñu mais yow dafa mel ni maanaam li ñu li ñu la seppi ci xeex bi dafa la xaw a métti d'une part. non non voilà. Euh, non dina la métti. Mm-hmm. dina la métti d'une part métti bi dul nekkul ne liñ ma seppi si xeex bi parce que buñ ma seppee tamit ne tax te waxuñ li tax ma se ñi seppi ma amul lenn lu bon loo xam ne xamal nañ ma ko du lenn. Mm. am na damay taxaw rajo wax du lenn loo xam ne gisal nañ ma ko. sinon kon duñ la jox nga diriger li domaine bu gën a sensible si àdduna bi. Mm-hmm. donc kon foofu moom nañ teg seen kii fële. mais nag bu fekkee ne da nga tourner gis sa sa xeet ñuy dee. Mm-hmm. loolu dina la métti. parce que benn bakkanu doomu aadama buy dee nga gis ko te man si dara. Mhm. buñ téye sa loxo dina la métti en tant que être humain. Mhm. humanité boobu yow moom ngay baña a rey sa xol. Mhm. parce que loolu bu dee sa xol rek yow nekkatoo nit bàyyi ma nga. waaw donc principe ñuy defendre yëpp de valeur ak vertu ñuy defendre yëpp lu ko lal humanité la. waaw humanité. Euh, donc mooy ne euh, bu fekkee ne yow virologue nga. parce que nekkul mënuñ ma tuuteel. kuñ dem ba jox ay prix prix international jox la prix mondial de mm-hmm. quelque chose mm-hmm. et cetera ngay commencé yéen am na yoo xam ne jot waxuma ko sax nangu ma ko wax mm-hmm. te ñu ko xam waaw donc donc donc <laughs> kon waaw donc donc kon nekkul ne Eh, nekkul ne euh, dañ lay tuuteel wala kii seen bopp la ñuy tuuteel bëgg jëriñ sa réew mënoo ko non non jot naa am na lu ma jot a liggéeyal réew mi saa rek nekk ma fi woon génn di wax ne li ma def lu ne génn wax mais moment bii waaw moment bii ma tourné gis sénégalais di dee crise sanitaire bu yam ni am bu yem nii ñi jox la maqaama bi si àdduna nga nekk nii te faale wuñ la seppi di def la leen neex yëfu maa tey sénégalais yi di dee boo suivre depuis ba may nekk États-Unis li ma doon wax yëpp mhm. nga suivre ko xool ñoom lu ñu doon wax ak li am donc da xam ne ne dina am lu la métti parce que benn bakkan sénégalais bu dee. Mm-hmm. nga xool ko waaw c'est sacré. léegi Aloyse Diouf. Ah. Euh, mi ngi dem na organisation mondial de la santé. Mm. Euh, lan nga ñu si mën a wax. no non docteur Aloyse Waly Diouf. waaw non non. aw ma leen lu ma ci wax. donc aw ma leen lu ma ciy wax donc. Mm. Euh, bu fekkee yàlla def na mu mhm. ñu nangul ko foofu surtout moment bi mu demee peut-être xaaruñ ko woon ainsi de suite non si domaine politique moom mhm. bugguma duma si bugguma ci xuus mhm. parce que boo nekkee si période de crise mooy comme li may wax rek boo si raxee do leen lu politique rek mën nañ ko interpréter nu leen neexee mais le fait que docteur Aloyse Waly Diouf yenn woon affaire bi yenn yenn affaire bi euh, nekk directeur cabinet ministre bi ñu nekk en phase de crise Euh, ba affaire yi jaxasoo mu mu mel ne ku daw donc doo doo xam lan la donc kan euh, parce que bu dossier sensible bu amee. Mhm. ni ko yenu nekk ca. lam ca mhm. xam. Mhm. bu fekkee dafa dem nag ba échoué bu fekkee dafa xam maîtriser affaire bi nekk ca. dem ba si digg bi nga dagg ko bu génne ko kii fay loolu dafa grave. parce que doon ak yi mu amoon yëpp dañ koy perdre. waaye bu fekkee ne nag. dafa dafa échoué ni dossier bi fu mu toll. Aloyse même su doon dem organisation mondiale de la santé waroon na xaar ba crise bi jàll. waaw non c'est que. ak li mu xam ci dossier bi. non xam nga ñoom dañoo échoué. Mhm. <clears throat> depuis sa njëlbeen ba. mooy li may wax ni professeur bi c'est pas n'importe qui c'est un professeur titulaire responsable de l'infectiologie. Mhm. bu demee ba génn taxaw di wax ak yeneen du ñoo xam ne ñoo jiite affaire bi ci Sénégal kenn ku nekk génn di ñaxtu. données yëpp soxlawuñ parce que chaque fois média ñu ngi koy soxla ma di ko énumérer. Mhm. xam nañ li am xam nañ ne dafa am ay manquements dès le début. léegi nag ña ñàkk rectifier ak nangu nangu euh, na manquement am na ñu rectifier ko dès le départ loolu moom moo nekk lu erreur yu grave mm-hmm. donc loolu su amee bu fekkee ne dañ koo libérer pour mu mm-hmm. dem mm-hmm. pour mën a jox keneen parce que il a échoué bon donc loolu dañuy nangu nit bu échoué ñu jox keneen mais fekkee ne il était compétent dans son domaine ñu seppi ko bàyyi ko mu dem loolu erreur la. Hmm. du moment bi daal du moment bi. voilà ah. euh, dinañ la laaj El Hadj Seydou Mbaye comme que dem nga ci réew yu bari ci àdduna bi gis seen plateau médical maanaam paj mi ni mu avancé médecins yi ni ñu amee les moyens pour faj mi nga ñëw fii ci Sénégal. Euh, El Hadj Seydou Mbaye euh, feebar faju sax ça pose problème dañuy wax souvent sax fii suñu médecins yi macha allah xarañ nañu jàng nañu am nañ xam-xam. mais plateau médical bi dafa défectueux même pour euh, da ngay gis ñoo xam dañuy jóge ci les régions ñëw fii faju ci à Dakar. waaw xam nga parce que région yi parfois sax même ici à Dakar da ngay war a def yenn analyse ñu naan la amu fi demal kii machine bi amu fi ainsi de loolu politique la voilà lan ngay wax ci plateau médical laxisme moo hmm. am si réew mi hmm. la xam nga man li ma gis ne Sénégal liñ bëgg mooy kii génn di ñaxtu hmm. di wane ne am na lu ko métti boo defee ñuy ñuy kontaan ci métti boobu doolu di ko métti dama la wax ne man 2000 damaa abandonné lépp malgré sama profil ngay gis am accès pour mën a nekk fu ne àdduna dama abandonné lépp si adduna ne damay dellu sama réew parce que ñun ñi nga xamee ni kenn ku nekk am na lu ko yàlla jagleel suñ dellu see si réew mi kenn ku nekk am fenn foo téye jafe-jafe yu réew mi am en quelque années ñun dinañ ko mën a résoudre mm-hmm. man loolu laa ma sa ma bàyyi lépp ñëw naa nee naa am na loo ma fi jot a liggéey ci réew mi caractérise fukki virus ak juróom-ñeent mm-hmm. fekk benn virus rek moo ñuy të léegi nit ku caractérise fukki virus ak juróom kooku lan la daj koy def mm-hmm. sans l'aide de personne ni de l'État ni de d'aucun membre du gouvernement amul kenn koy wax ne maa ko jox xaalis maa ko jox bourse wala maa ko jox salaire te liggéey naa si ay at mhm. sans salaire fii si réew mi nan laa doon dundee nan laa doon def yooyu yëpp waxuma ko parce que dama ne non yàlla moo ma yenn li nattu la pour sama réew il faut que ma yenn ko résoudre problème bi mhm. waxuma ci dara ba mu sottee damaa ñëw indil leen nguur gi ne leen kat lii moo si kii parce que bu defee acte trois de la décentralisation mhm. avancé la ku ko dégg rek danga nga naan acte trois de la kon réforme la pour mm. décentraliser affaire yi si réew mi mm-hmm. bu ko defee région bu nekk autonome kenn ku nekk muy sénégalais foo munta nekk si Sénégal nga mën a gis sa bopp mm. loo soxla sa sa sa si réew mi soxlawul ngay génn sa région mm. du nga ko am loolu la ni jàppoon waaye bu fekkee ne acte trois de la décentralisation ñu gis li am si santé bi te moo am si domaine yu bari si réew mi lépp loo soxla Dakar nga ñëw santé mu dafay raw waaw do lu bëri éducation loo xalaat wax ji moo fi kii rek mm-hmm. mais boo génnee fii dugg si yeneen région yi mm-hmm. après da ngay yërëm vingt ans nga jóge fi nga dem nga dellu si ma xool comme ça si benn région mm. xool batiment yu bees ya fa nekk yeneen kii yu bees yi ñu fa def da ngay gis ne pratiquement defuñ fa dara en vingt ans nga mm. gis ne y a d'évolution nga gis ne tamit nit ñi ñu ngi gën a génn di dem te ñu ñun formé bañ am ba génn dem pour ñu jàng ba pare dellu soit c'est même sa région pose ça pose problème loolu kay bu ñu ne acte trois de la décentralisation mooy am philosophie ne à court terme d'ici peut-être dix ans dinañ fexe ba réforme ba sédentariser population régionale yi mm-hmm. bu ko defee lañ soxla yëpp lañ koy am foofu dootuñ soxla di génn mm-hmm. man ba ma ñëwee si domaine santé man dama man loolu moo nekkoon sama vision ne damay accompagner nguur gi. Mhm. si acte trois de centration lépp luy santé di diagnostic soxlatu ñuy génn région ñëw di ko def si Dakar. Mhm. loolu dafay dafay tax. population yi doot dinañ économiser coût de transport mm-hmm. dinañ économiser jour jour voyage bi mm-hmm. dinañ économiser parce que c'est pas forcément ñi xam fii ni Dakar ay nit ñi nga xamee ni ñoo leen mën a héberger ah, euh, troisièmement dinañ am ay diagnostic yu rapide ba quatre cinquièmement dina tax tamit médecins yi nga xame ñoo nekk Dakar ñu nokk ñu nokki tuuti parce que dañuy surchargé mais kenn ñemewut a wax parce que ku wax rek dañuy foog ne da ngay attaquer politiquement. wala da politique euh, waaw da ngay politique. da ngay attaquer donc jàpp nga ni daal politique bi moo tax ba léegi munuñ euh, munuñ avancer avancer si réew mi loolu loolu moom buñ nax suñ bopp. Mhm. <clears throat> buñ nax suñ bopp mais mais El Hadj euh, vaccin contre Covid 19 laajoon naa la ko fi. dans combien de temps lañ ko mën a am nga joxe woon ay kii ñu naan lii sax sori na ainsi de suite mais jusque là peut-être euh, euh, amaat nga dëgg que hmm. ba léegi amaguñ euh, carrément vaccin ah. contre la covid 19 di dëggal la nga xamante ni waxoon nga ko ci début mais am na yeneen données pandémie bi même am lan nga siy wax par rapport même am na yeneen données yu ma World Society for Virology envoyé mhm. parce que après def nañ un partenariat avec euh, institut international du du vaccin Euh, ku ko jiite DG bi bon hmm. si sama koy koy pique la dans World Society for Virology moom mooy Nations Unies département hmm. Nations Unies bu amee affaire vaccin hmm. donc euh, pour euh, que ñu mën a développer le plus rapidement ay mm solution yoo xam ni pour mën a freiner affaire bi am na trente cinq laa la waxoon laboratoire léegi am na parce que information yi moom ma jox presque parce que dañoo mujj libéraliser képp ku mën a def amoon na plus de cent ñoo xamee ni si àdduna bi chinois yi yeeg ñu si nekk ñoo xamee ni. Euh, ku nekk ñu ne la gëstul. ku mën a gëstu daal gëstul. loolu lañ joxe. Mm-hmm. Euh, pour kii mais daal pour defar vaccin même bu ñu la joxee accréditation bi yombal la ko tout ça pour nga def gëstu yi si war si laboratoire yi ba def test yi. ba def ko test clinique yi tout ça atal na nga séntu at. Mm-hmm. waaw na nga séntu at Ah. Euh, waaw pour nga pour waaw at minimum pour nga mën koo am parce que lim laaj il faut que nga bàyyi comme si virus bi ni muy lawee ni nga mhm. nga nga vacciner population bu bëri. Mhm. après gëstu seen biir xool ndax ña nga vacciné woon est-ce que am na ñu si infecté wala déet. Mhm. pour nga évaluer ko mhm. mathématiquement. donc il faut du temps. il faut du temps mhm. léegi seulement que lu doon jafe mooy pour ñu accréditer ko mu génn rek pare rek. ñu ñu valider ko <clears throat> nangu ko au niveau international parce que dafa am dëkk bu nekk si àdduna bi surtout comme ay traité comme FDA muy. Euh, Food and Drug Administration bu bu États-Unis mhm. am euh, Union européenne muy euh, pharmacopée de de de de du médicament de l'Union européenne mhm. ñooñu dañuy gëstu médicament lu lépp lu nga xam ne dañ ko war a euh, jaay commercialiser ci zone yooyu ñoom dañ koy gëstu pendant des années parfois day masa dix ans avant ñu koy ñu koy accrédité mm. mais comme que circonstances yu nekk ni euh, papier yooyu gars yi allégé nañ ko de telle sorte que bu demoon ba vaccin génn tamit duñ ko duñ ko euh, jafeel yi benn jafe boo xamee ni mm-hmm. accès bi dafay yàgg mm. waaw donc kon nañ séntu at rek fekk waaw fekk mais vaccin yi laam la en Afrique on a vu émission en direct euh, ci benn chaîne française ñuy wax ni am nañ ay vaccin yu ñu pour tester ko mais dañ koy indi fii Afrique gis nga toole bi nga xamante ni juróon juróon na ko euh, à l'Afrique euh, du cobaye ainsi de suite lan ngay wax par rapport à ça vaccin yo en Afrique fii lañ koy essayer d'abord non wax nañ dëgg la mhm. l'Afrique ñun loolu mhm. képp kuy africain yow yaa si war a njëkk a jug l'Afrique du du du du poubelle Afrique c'est le berceau de l'humanité mhm. loolu kenn mënu koo dindi ñëpp na d'accord nañ ko donc buñ buñ buñ buñ tuuteel suñ bopp buñ nangu ñu euh, lu nekk poubelle rek ñun lañ koy yab bu fekkee ne dañoo dañoo wax ne lii ñuy bëgg a def nii dañ koy defal àdduna yëpp. Mm. yemale ñëpp ñu xool. Mm. waaw loolu loolu sax boobaa xel mën nañoo toog sax réfléchir si. Mm-hmm. mais duñ ciblé Afrique kese ne Afrique la pour pourquoi Afrique. Mm-hmm. pourquoi Afrique donc yooyu yëpp ay kii la yoo xam ne yu ñu war a toogaat xalaat la. mais population africaine doful amul feneen fu ñu ko mën a jaaxale parce que nit ñi dem nañ sax ba wóolootuñ test yi ñuy def. fii non xam nga mooy lu ma wax lépp loo seen politique mm. la boo seenee population sénégalaise mi bàyyi ndiku parce que nit ñu dofuñ te léegi la jeunesse africaine dafa yeewu kenn du ñu pamti pamtee waaw xoolal mouvement yu am si Afrique actuellement ni xoolal lan moo tax ñu bëgg a changer monnaie bi ay éco ay kii nii mm, mouvement yi nga gis est yi amoon na fi peut-être jamono indépendance nga daan dégg indépendance indépendance léegi Afrique dafa bëgg autodéterminer wu mm-hmm. parce que lépp lu Afrique àdduna bi soxla Afrique am na ko te ñun dañ koo am ba bërile ko ba bërile ko adduna bi dëkk yoo xool yu bëri dañoo exploité lañ amoon yëpp pratiquement ba mu jeex. Mhm. Afrique nekkoon fi moom pratiquement exploité wul dara ñu toog léegi nag ñoom toog nañ ba xool gis ni liñ soxla yëpp Afrique moo am réserve yi ñëpp di daw pour sëqatoo Afrique mais ñun dofuñ ñun ñoo war a am loo xam ne dañ koy bañ. lépp li nga xamee ne dañ koy def ci Afrique ñu teg ko ci règle yi nga xamee ni africain yi dañ koy saytu mhm. gëstu ko seen xel dal ci ñu def mhm. ko mhm. waaye kenn du ñëw di ñu pamti pamte di ñu jox ay vaccin yoo xam ne xamuñ fu ñu ko defaree xamuñ lan lañ ci def loolu soxlu sax ma koy wax population bi buñ jugoon na dañ leen di vacciner comme ça comme ça mais dofuñ duñ ko accepter boobaa dinañ xool yan vaccin la est-ce que ñan ak ñan la ñuy vacciner est-ce que ñun kese la est test la ku bëgg parce que vax kenn wurut a forcer kenn si mu vacciné wu. léegi pic ah. bi. Uh, gis nga même si affaire pic bi affaire politique lalu na si Abdoulaye Diouf Sarr defoon na fi déclaration ne ñu ngi ci pic bi mais gis nañ ni après quelque temps gis nañ ni ba données yi joxu ko dëgg par rapport ak li mu wax ci pic bi gis nga euh, les spécialistes génnoon nañ ne yeggaguñ ci pic bi ainsi de suite yow tey jii El Hadj Seydou Mbaye da nga ñuy wax ni ñu ngi ci pic bi yeggaguñ ci pic bi wala weesu nañ pic bi. waaw euh, wax nga léegi ni docteur Aliou mm, waaw dem na lan moo tax mu dem duñ ko nangoo wax. leerul de. waaw est-ce que promotion organisation mondiale de la santé promotion non non promotion dañ en temps de crise crise crise la. promotion mën nga am promotion fu ne si adduna bi mais période de crise man maa ngi nii dama amoon ay congrès yu bëri yu may organiser si àdduna bi ak États-Unis mais dañ ko mujj suspendre te pourtant lu ñu programme lu ñu def lépp la te ñu ko progr ñu ko programme ay kilifa lañ si àdduna bi. ay mm-hmm. États-Unis fu ne dañ ko mm-hmm. suspendre. Mm-hmm. donc promotion bu ñu la ko joxee tamit te yow nga yeenu bu fekkoon ne subordonné rek la mu dem garaawul. mais contexte bi mu demee est-ce que amul clash ak ak ak ña fa nekk est-ce que la doon wax yëpp sa njëlbeen ba ñam nekk ak safaan ba la ñuy def wala ministre bi safaan ba lay def di jël yenn décision attanu ko mu dem parce que xel nangu ko mu toog ba léegi mu dem. Mm-hmm. bu fekkee ne nit normal la. en général yooyu duñ ko wax. Mm-hmm. waaw donc pic. dama dama koy dama koy leeral dama koy leeral dama koy leeral. mu leeraat ci bopp nit ñi. Mm-hmm. Sénégal pic. dama koy répétaat Sénégal atteindre gul pic répété waat ko troisième fois mu leer ne du nekkul équipe Sénégal atteindre gul pic. pour nga ne atteindre nga pic. Mhm. dafa am processus booy def te pic mooy lan pic mooy mu ne yow. c'est-à-dire que dem nga croissance exponentielle la lay épidémie di def. Mhm. bu defee exponentielle day dem ba àgg fenn day nekk plateau. plateau boobu muy àgg loolu la ñu naan pic. Mhm. mooy day monter monter ngay gis bu kii loolu lenn nga mën a def def nga mën nga def ñaari méthodologie bu njëkki mooy da ngay def confinement total de la population jour et nuit kenn du génn bu ko defee ñëpp seen kër yi la ñu nekk ña feeb joto fi infecté wu rek ñoom ñoo nekk seen kër yi infecté seen famille mais ñu ko mën a wàll. Mm-hmm. léegi nag yow ngay détecté di détecté ndànk-ndànk di détecté di détecté képp ku nga xamee ni da ngay détecté da ngay dem ba toll foo xamee nombre ñu ngay détecté dootul yokkati. Mm-hmm. léegi nag wàllaate bi amatul. léegi nag bu demee ba tollu fenn foo xam ne nombre bi day wàññeekuwaat parce que nit ñi amul transmission. Mm-hmm. léegi nag loolu période boobu noonu da nga koy calculer au delà de temps d' bi. Mm-hmm. donc minimum deux semaines bu fekkee moom la wax nga yokk ci benn marge donc ni ñu def trois semaines doo xam ne incub dañuy def confinement général mm, total. bu ko defee éliminer affaire bi complètement mu dañ. loolu la wax ne atteindre nga pic. Mm-hmm. ñaareel Mm-hmm. ñaareel ba mooy damay wane mu leer mu profité wane mu leer pour mm-hmm. mu leer si bopp nit mm-hmm. ñaareel ba mooy nga ne da ngay bàyyi mu law si population bi di confiné woo dafa dara muy continuer di law di law di law ba lu ëpp 60 pour cent de la population infecté wu 60 pour cent yu sûr yoo xam ne infecté wu nañ léegi boobaa dafay dem ba nekk da ngay dem ba àgg pic boo xam ni dootul progression bi day day ralentir dootul mm. dootul yokkati mm. nombre da ngay am foofu lay mën a yem foofu lay mën a yem mm. dootul yokk léegi te ñaar yooyu yëpp benn amu si si Sénégal duñ ñama soixante plus de soixante pour cent de la population sénégalaise est déjà infectée par le Covid non vitesse de propagation ak yooyu donc lu nekku noonu loolu lañ am ñaareel ba aussi pour nga mën a vérifier loolu il faut que nga def dépistage dans la population général nga soo la neexee nga ne nga ne semaine hmm. mille chaque jour mille laay def mille entre mille à deux mille par hmm. jour hmm. mais doo ko def si cas contact yi ñun ñu ñuy ñu ñuy dépister pratiquement ka contact yi la. Mhm, moo tax tout le temps da ngay gis ñenaan naan ay presque cent cas euh, cinq communautaires. Mhm. mais non c' est parce que ka contact yi lañ lañ dépister loolu mënoo see xam pic bi alors population général mu ngi refléter pour xam fan la fan la vitesse de propagation am parce que tant benn nit kese mi nga am virus bi nekk ci population général jàppal ne supposé ne benn nit kooku mën na wàll ay téeméeri téeméeri nit. Mhm. et cetera te bu fekkoon ne ñu bëri ci population bi jotuñoo wàll téeméeri téeméeri ñuy continuer di wàll. population générale. Hmm. donc foofu mënoo wax na am nga pic. voilà deux ah. trois minutes moo ñu dese El Hadj mbay Mbaye euh, ñu laaj la ci chloroquine artémisia chloroquine parce que xam nga coow li mu jur da koy faj du ko faj euh, professeur Seydi doon na ko utiliser artémisia euh, gis nga tamit coow li mu jur en tant que spécialiste virologue lan ngay wax par rapport ak ci chloroquine bi artémisia bi. waaw xam nga traitement. Mhm. maa la ko doon sama première émission bi ma njëkk a Euh, ne la traitement mën naa am. Mhm. donc foofu dañ nañ nañ basé wu rek si borom xam-xam yi. Mhm. ñi nga xam ne ñooy traité ñu tànn liñ bëgg a traité. Mhm. ah bu fekkee ne traitement c'est-à-dire que mooy ay groupe yu ndaw la. la ñuy traité loolu garaawul. mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar. ñu testé ko seen biir xool loolu garaaw lu bon kay mooy jël rek appliquer massivement. ne ne ñëpp defandoo nii. parce que loolu dafa nekk risque épidémique. dafa am mën na am lu lalu si suuf loo xam ni mën a Mhm. si yeneen xeetu jàngoro wala mën na indi ay yeneen complications yoo xam ne feeñutoon mais après si lañ koy xam te loolu loolu lu ñu war a moytu la donc euh, bu fekkee ne dañuy jël artémisia wala chloroquine wala beneen traitement médecin chef bi décidé na man kat nii laa bëgg a traité sama patient. Mhm. muy ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar. mu mu mu saytu ko bu demee ba nga xam ne gisu si njariñ résultat bu doy moom war na am sagesse. mu arrêté ko xool leneen. xool leneen xool leneen waaw mm. donc man noonu laa gisee moo tax du wax ne lii lañu war a traité. lii la ñu war a traité mm-hmm. donc yow validé woo carrément artemisia validé woo carrément. Euh, chloroquine hydroxychloroquine validé wu ma benn type de traitement lu may ne ki amee pas ay patient moom mooy responsable traitement ba muy utiliser. Mm-hmm. pour patient yooyu. waaye bu fekkee dafa utiliser traitement na ne population générale booba damay taxaw ma lànk. Mm. parce que loolu ñun ñëpp mais professeur Seydi nee na moom ñi mu traité chloroquine. Mm. Euh, maanaam si la gën a am satisfaction. wax na ko moom waaw waaw waaw moo tax ma ne la foofu noonu. ma leen ma ci wax ñooy gaaw gën a gaaw a wér. moo tax ma ne la foofu oo ma leen lu ma ciy wax. moom waxam la moom mooy spécialiste bi saa à dire nit ku nekk danga koy nangul la ko yàlla jox mhm. suñ problème Sénégal loolu la mhm. dañuy bëgg a seppi nit ki lam doon eh, indi ñeneen ñoo xamee ni mën nañoo nekk professeur si beneen domaine mais mais buñ bu ñu leen def confrontation directe ak ki xam ne mooy responsable am xam-xam boobu loolu loo loolu suufeel xam-xam la mën nga indi sa opinion soit disons de façon générale mais responsabilité nit boo ko jiitalee mu am benn responsable da koy nangu yenn type de responsabilité. Mm. moom bu nee moom mooy lii lay traité. Mm. mu teste ko ci ay groupe yu ndaw. Mm. léegi leen rek la ñuy xool est-ce que méthodologie bu mu utiliser méthodologie scientifique la. bu fekkee méthodologie scientifique la méthodologie d'éthique la. Mm-hmm. bu fekkee méthodologie d'éthique la et cetera yooyu suñ ko accepté nañ ko nangu loolu suivre ko bu amee résultat ñu nangu bu amul résultat nag ñu taxaw ne ko li nga doon wax bañ may la ko te amoo résultat kon lii duñ ko nangu. voilà euh, ah. juste quelques secondes di nga noté organisation mondiale de la santé ñu tàggatoo. Hmm. heure bi jeex na. Hmm. Euh, gis nga euh, Donald Trump dafa daf daf leen a mere ba ne sax financement bi nga xamante ne ñoom ñu ngi ko doon jël di ko yóbbu ci organisation boobu dañ koy dakkal parce que jàpp na ni organisation mondiale de la santé taxaw bi mu taxaw ci pandémie bi vraiment amul njëriñ daal yow boo doon noté. Euh, organisation mondiale de la santé. Euh, ban note la ko doon jox juste quelques secondes ñu waaw parce que xam hmm. euh, mooy kon moo wax ne. saa à dire hmm. xam nga nit. moom laa conclure léegi nii si mujj bi. Hmm. nit ku bu ñu la nangulee sa xam-xam rek la nga xam yëpp mënoo ko étaler. mais kuréel gi en tant que tel. waaw foofu la foofu laay waxee. moo tax ma ne la. organisation mondiale de la santé. cest à man ba ma ñëwee comme Sénégal fii nii. pour pour pour dellu si. loolu laa gisoon dama gis ne. bu crise mondiale amee épidémique te loolu wax naa ko ci média yi ah nee naa mm. leen insister ah ci te en direct ne leen pandémie bi mi ngi ñëw te bu ñëwee kenn du ñu tal parce que réew yëpp ku nekk sa bopp ngay tal. Mm-hmm. ñu ma doon wax ak di ko ko débattre di kii naan non non di kii parce que la ngay gis xam ko mënoo étaler lépp parce que duñ la nangul yow fa ngay waxee duñ ko déggee loolu moom nga wax nii moom moom moo dal États-Unis mm. parce que ba mu amee organisation mondiale de la santé amul effectif bu doy boo xamee ni dina mën a jàppale adduna bi yëpp. te États-Unis nekkul réew mu ndaw. Mhm. Euh, population bi trois quatre presque quatre cent million la ñooñu pratiquement bu crise daan am ñoom seen bopp ñoom ñoo doon jóg États-Unis volontaire yu jiitu presque réew yëpp. si bépp mbir si àdduna bi nekk gendarme àdduna bi di jàppale àdduna bi. dégg nga fa waxee léegi nag ñoom bu ñu demee ba soxla kan mooy ñu mën a ñëw di leen jàppale parce que ñeneen ñi bëriwuñ amuñ benn doole bi donc gis loolu noonu da ngay gis ne organisation mondiale de la santé du mën a jëlee ay nit par exemple Chine di leen yóbbu que Chine soxla na. Mm. du ko mën a jëlee France di leen yóbbu États-Unis parce que France soxla na. Mm. Italie pareil et cetera et cetera ak yeneen dëkk yi des mooy dëkk yi ndaw ndawaan ay Sénégal ak yooyu ñu seen dara matul sax ba ñuy mën a. <laughs> yónnee kenn waaw léegi nag loolu moom dafay gis ni mm. li muy def dépendre yëpp du ko jàppale àdduna delloowuñ ko laa bal. te dafay métti aussi. parce que euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo jeex na waaw. voilà ah, maa ngi lay gërëm ah, monsieur madame Moreau. Mm-hmm. Euh, di rafetlu euh, sa taxawaay ak sa invitation jotoon nga ma fi invité. dëgg la euh, dëgg la mm. moo tax. Mm. yaa ngi woon États-Unis bon maa ngi woon États-Unis ni nga ko mm. defee mu rafet lool macha allah donc ma ne moo tax ba nga ma waxee nii rek bon teguma ci baat. donte sama sama calendrier dafa chargé lool. dama la wax ne xoolal fixer rek après on essaiera de faire tout faire pour venir. Mm-hmm. donc loolu maa ngi koy rafetlu di rafetlu collaboration di ñaan yàlla aussi mu nekk lu fructueuse. Mm-hmm. Euh, dans le futur aussi mën a jariñ aussi sénégalais yi. Mm. bu ko defee ñu mën a xam euh, li xew si réew mi man cee teel a jóg maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna. Euh, di ñaan yàlla mu suturaal ñu si jàngoro yi bi am ni ak yeneen yu nar a ñëw euh, si àdduna. voilà ñu ngi koy remercier bu baax a baax docteur El Hadj mbay Mbaye euh, nag nekk virologue maanaam xam-xamam ci wàllum virus bokk tamit nekk membre associé à la société mondiale de virologie ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures di remercier Mamadou Diaw Diallo ci wàllum technique bi émission bi nag mën ngeen ko suivre euh, ci suñu euh, portail internet www rewmi point com wala ci suñu euh, chaîne YouTube Rewmi officiel Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10 heures jàpp 11 heures ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf.